xëy nañu fajar ñëw andi seeni policier ak seeni camion policier ñëw génn nañu dajji suñuy nekk avertir ñu defa ñu dara 12 ans ñan ñang di daw sama kër papa bi bu tool nii dañoo fas yéene autorité yi dégguñu trois familles la ñu génne tey amuñu baay amuñu ndey cinquante trois ans ñu ngi dëkk ci kër gi man fi laa juddoo am naa fi sët cinquante trois waagu ñaay ji ñu juddoo cité waagu ñaay 402 maisons yëpp xam nañu histoire bi tey dañ ñoo jaay doole. ay juste lañ jaay. ay juste amuñu doole. autorité lañ bëgg dégg ko dégguñu ñu xam ne lii Sénégal li fi nekk amul amul yoon jaay doole la force la ñuy jaay. la famille Pouye waaw la famille Pouye ah waagu ñaay 2. la famille Papa Ndiaga ñoo nangu kër gi parce que dañu am benn terrain boo xamante ne terrain boobu huit personnes ñoo ko bokkoon sama famille papa ñoom huit la ñu ñoo ko bokkoon bañ ko jaayee diplôme waa ji sax attaqué na diplôme mais diplôme da ko partout mu ëlbatiku dem sax papa ak un certain Ousmane Sarr ak Babacar Pouy léegi mu xam ne ni moom bon léegi mënalul diplôme dara mu ëlbatiku si ñoom xam nga rek fii Sénégal nu muy doxee mu dem première instance ñu gagné ko léegi ñu dem benn instant laay toog pa dem audience ñu ne ko non renvoyé nañ ko après dinañ leen wax date bi ñu dem ndekete ñu ngi dóor seen i dil si suuf pa n'a jamais vendu de terrain bu fekkee dafa jaay terrain bi wane fu léegi kon ko amoo euh, terrain boobu 40 millions la doon jar ñu séddale ko ku nekk am 4 millions 800 et quelques mille léegi ne ko kon ko loo fayee sa kër gi la ñuy jël daal koy tayle ci terrain bu le